gisandoo ah sama mag sama xarit Pape Diouf ah Matar suba teel bébé baas ak familian ah, génération consciente ak ñëpp suba teel ah ñëpp jékki-jékki rek ne lañu may sargal. sargal bi mooy damaa dem am ndam te xam nga ne ñoom dañoo mën seen nit. sa digganteeg nit ñi lal la parce que lii tey ku xool kanam yi rek xam ne ñëpp souriante ñëpp a bëgg yéene la yëf sa digganteeg nit ñi. waaw mais ku ci ne ma jox la cër bi nga moom rek. jox la cër bi nga moom yéeg la yéeg bi nga war a liñ la war a yéegee respecté la ni ñu la war a respecté ndax àdduna loolu rek moo fi am da ngay respecté nit ñi nit ñi respecté la respecté woo nit ñi kenn du la respecté bëgg nit ñi nit ñi bëgg la bëggoo nit ñi kenn bëggu la yéeg nit ñi nit ñi yég la yëgoo nit ñi faalewuñu la. bi nga tàbbee ci kër gis surprise yi xew tey nga gis nit ñoo xam ne gëj nga leen gis gis tafaagoo leen fi lan la def ci yow. waaw bari na ay kanam yoo xam ne billaahi gëj naa leen gis wala am na ñoo xam ne mosuma leen gis dama leen doon dégg rek mais tey bu ñëwee fii ah sama fierté kër Pape Diop bi nga xam ne sanc bu bees la. moom sax defagu fi émission. waaw yaa ko bi man maa njëkk a def lii. te moom moo ma rayal ay xar ay ginaar defal ma lépp moo Matar Subatel Badara Gajaga Pape Diop xam nga Bébé Baas Birane ñoom ñëpp xam nga. booloo nekk benn ñëw sargal ma sargal bu rëy bi. boo yéegee boo gisee xar yi da ngay waaru ginaar yi dara lépp dara dara jeexu fi. toujours kon loolu moo lay wane sa diggante ak Pape Diouf sincère la parce que sànc këram ni kër neexee yow mi nga xam ne yaay borom kër gi ubbeegoo ko nga ubbi ko loolu mooy seen diggante sincère bi ci am. indi fi ñëpp. ñu ñëw toog xam nga gars yi fu mu nekk nii maanaam photo yi kenn mus fee toog. waaw ñi fi toog man maa tax ñu toog fi. ci kaw kenn mus faa yéeg lu dul moom ak Ah, jabaram ak doomam ñëpp fu mu nekk nii découvrir nañ ko te billaahi ñoo ma gën a sonn ci bis bi. waaw kilifa bu toll nii Pape Diouf ku ne xam ne ni kilifa la. bu mag xam nga. tey li ma li ma sañ ci moom mindee sañu ko ci moom. Mhm. lépp rek bëgg bi ma bëgg ak cofeel bi ma sopp xam nga jabaram gëmewu ma jabaram boo ko gisoon léegi boo ko bettoon ak caméra da nga naan kii du bébé baas ndax kenn xàmmeewu ko ndax mi ngi xeeñ xun nag ay togg. xeeñ xam nga lim sol da naan kii. ndax bëgg sama ndam lu ko kenn jaralul kenn jaralu ko loolu moo tax bëgg bu ma bëgg rek man maa leen raw moo tax ñii léegi ñii nii dinaa leen jël di leen yemaleeg dara du ma leen yemaleeg tous barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ay njaaxaanaay ak yi gars yi di wax defuma ko xawma ko fair play fair play mukk ñoom rek laa bëgg ci ñoom rek laay veillé ci ñoom laay wër li ma lay wax nii xam nga du ma fi nekkaat di ko détaillé di kii yi gars di wax Ketchup njaaxaanaayee njaaxaanaayu ma loolu je ne le fais pas. da ngaa tëddee wet quoi. mu mu côté sax xam nga koo xamul ni koy def ni la def rek moo ko waral te bëgg nag dara du ko fay lu dul yëg te ay nit lañu nit duñ ko lekk doyuñ ko dara lu dul njariñ te Boucher sama diggante ak moom àdduna si sépp xam nañ ko jaratul sax. ñu ciy wax lii nag du dara lii du dara parce que ñun chaque jour ñun li ñuy dund chaque jour happiness la ñuy dund ñun chaque jour enjoy la ñuy dund chaque jour defante lu baax la ñuy dund donc euh, combat bi nga xamante ni euh, ñu ngi ciy remercier suñu frère moo géej ñu ngi koy remercier bu baax parce que gis naa ni mu ni mu jàppee Boucher gis naa ni mu bëggee Boucher ndax euh, xol du fen kon tey bu ko organiser le combat bu mel nii yàlla may ko ci ndam mais loolu suñu ndam la loolu suñu ndam la donc euh, vraiment euh, ma si ma stressé ci woon trop nag combat bi jaaxle woon ci lool ndax depuis combat bi am man dama gëmoon ne combat bi du duñ ko bëree man dama yaakaaroon ni. non wóolu naa ko mais xam nga rek boo bëggee nit. man defoon naa ni moo gét organiser na ko mais boucher waayam la da da day exempté <laughs> yëpp mën na mën na officialiser combat ba mu des bu boucher. mais mais bi ma gisee boucher génn def ay vidéo di laaj ay conseil <laughs> ba pare naan ma woo ko ñu waxtaan mu naan ma grand riñ bi ci ginnaaw lañ koy tëj te foofu amoo fenn fooy fente ma ne ko kon yaatuwul ni sunu kii ñun <laughs> Fadel ma jaaxle ma jaaxle bi ma demee Fuuta ci yoon wi bi may ñibbisi ñi ngi ma naan naa toog ba noppali ko ba nelaw ma ne leen noo suba dama am rendez-vous boobu combat bi laa yenu na naa ko seetaanee ci yoon wi rek mais bi bu daanee dafa mel ni àdduna lañ ma yenoon ma yen yennee ko vraiment mu neex loolu nag loolu nag dafa neex ndam dafa neex moo tax ma ne ko nag tey moom noo non ceinture bi moom kër gi lañ koy feetee quoi. kër ga lañ koy seetee ñu la njëkk a <laughs> félicité di la ñaan aussi.

waaw daara fii daara la te jombul kenn waaw yéen képp kuy sama rak boo fi ñëwee ñaanal ma dama la naan maa ngi lay ñaanal nga am lu ëpp lii ndax dara du ko maye liggéey rek moo koy maye ak bañ a yàkkamti tepp tepp gën yu rek liggéey rek moo koy maye ak bañ yàkkamti donc fii kër sëñ Touba la fii këru kull ku fi dugg si rek fii sa kër la ñun dañu yar si lislaam yar nu si taalibe yar nu aussi si discrétion donc euh, loolu lañu dund ci la ñuy dund abadan ndax sama papa da daan wax comme ni ma ko daan waxee li ngay def si lu baax sa loxo bii bu ko yëgalee sa loxo bii rek dafa too ngir yàlla te kuy def rek defal ngir yàlla ndax lépp ay jeex ku weddi laaj ñi fi jógee ñun ñi fi des nag nan ko rafetal rek ci lan discretion simplicité taalibe ndax lu nit am rek nit ëpp la na fuuf te du du ko doxee du ko waxee fi moom Fadel kër sëñ Touba la. Daaru Salaam la ko. Daaru Salaam la xam nga sa diggante ak maam Cheikh Anta Mbacke. mooy sama jëwriñ mooy sama sëriñ foofu laa jokkoo. maa ngi nuyu suma mag Youssou di ko ziare bu baax di ko ñaanal ah, euh, moo ni idole suma référence di ko xam ne ikon la c'est une icône mondiale euh, c'est vrai Youssou moom euh, mooy suñu papa mooy suñu kilifa. te nag mooy suñu mantoo kooku kooku fu mu jaar day mokk ci kattanu yàlla ndax li ko ko may mooy liggéeyam persévérance am expérience am ak aussi bëgg Afrique damay sax jéggi Sénégal mais bëgg Afrique doon euh, panafricanisme tey Dakar Arena bijou la boo xam ne nous les Sénégalais waxuma ñun les Sénégalais mais tey man sama rêve mooy même les artistes africains di jóge seen dëkk di ñëw ba Dakar Arena di fi produire mën naa war na mën a nekk ndax il faut ñu gën a gëm suñu bopp tey li tubaab yi am ñun mën nañ ko am mën na nekk et que c'est tey boo demee ba Bercy Arena ak Accor hôtel Accor ba ne ca France sunu Arena bi gëm naa ni moo ko dàq moo ko gën a nekk ci état et moo ko gën a récent kon je pense que ni tey euh, bu ñu amee chance am lu mel ni dakaar Arena ñun ñoo ko mën a jaay nous les artistes yàlla nag dogal na tey suñu mag suñu xarit suñu xalifa jiitu fa muy yuusu donc ñun ñii di ay doomam dañuy ñëw rek topp ci ginnaawam maanaam delloo buum ca mbay mbay ga ndax ñoom ñoo bale yoon wi ba mu set donc c'est vrai que ñun ñoo fa waroon njëkk a dem mais jàmm ak pexem yàlla dogalam l'homme propose mais Dieu dispose mais xam nga ni benn la ndax Youssou fu mu jaar Youssou mooy Pape Pape mooy Youssou loolu la yàlla dogal looloo waral mais loolu yàlla dogal loolu la yàlla dogal muy loo xam ne nag du lu ma triché ah, lu ma gëm la à basage bi ma koy bëgg boobu xalaatu moon ne dinaa woy ma yàgg ko bëgg yàgg ko sentir koo xam ne danaa sàcc xaalis yaayam dem jënd album buy tëgg concert ma sàcc xaalis <laughs> dem seetaani ko donc ba tey yàlla dogal man nekk woykat mu ne ah kon kon dara du manqué foofu kon dara du manqué dara du manqué donc ñu war a dem nag Dakar Arena le le 18 juin incha allah rabbi euh, muy fête le grand bégué feetu Sénégal la feetu Afrique la donc euh, ñu ci woo ñëpp waaw.